الله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي جلدي بوكي الإسلامي بوكي تالبي mbokki سرين yu nu bokkal جناو بنيو سنت يلا جلتش يننتم بتد بسال الله تعالى عليه وسلم دينانال سنو كليفة سنو خليفة جنرال سرين سيد مختار سنو برام كاتنالكو تيوك أو فنم ba lepp lu mu bëgg am yéene ci liggéey ko ci yoonu serigne touba yu te boobu doon bu Serigne Touba bég lool ginnaaw loolu ñu dellu ci seen émission jaar-jaaru mag ñi fii ci sunu site internet murit info niñ ko daan defee ay bis ju nekk ñu tànn menn mag ci mag ñi nga xam ne ñoo toppoon Serigne seex si nga xam ne ñoom la Serigne tubaa seexal ngir tasaare lislaam ngir tasaare yoonu tasawuf looloo taxoon mu seexal leen kum ci seexal la ci ay dëkk nga gor ko boole laak mbooloo moo xam ne danga leen di tarbiya àggale leen ci yàlla ñooñu di seex soosu nga xam ne Serigne Touba Seexul Xadim daf ne leen woon roy leen saxaaba saxaabatul kiram ñi toppoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñooy seen nawle bu ngeen di roy roy leen saxaaba yi ndax ñooy seen bàyyi ci diine nga xam ne seen bët dañ ko jëloon teg ko ci ku mel ne Seyduna Hamza jël seen bët teg ko ci ku mel ne Omar ibnul Xataab jël seen bët teg ko ci ku mel ne Aboubacar Siddiq jël seen bët teg ko ci ku mel ne Othman ibnu Affan jël seen bët teg ko ci ku mel ne Ali ibnu Abi ne leen ñii ñooy seeni nawle bu ngeen di roy ci diine roy leen ñii jàmbaar yooyu nga xam ne fu lislaam àgg tey ñoo ko fa àggale ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoñu sahaba yoy nga xale dañu jëfé ci bërepp bu kenn mëna a jëfé muy ñoo teewoon ghazwatu badr ku dul ñoom ñoo la gën ñoo la ëpp daraja ndax jëfé nañ ci bërepp bo xamné ne mëna mënatu faa don doonte ngeenel ci sun borom lay nek sun borom akoy jox kuko sop ñoo teewoon Uhud ñoo fatxu Makka ñoo yon and ak yonent bi alayhi salatu dem Madina ñoo dem Taif ñoo gàddaayoon dem xabasa Éthiopie ñoo tasaare lislaam ci mboolem goxi àdduna ñoo ñooñee la leen sëñ Tuba royloo woon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon asxaab yi kan nujum bi ayyihi naqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni ay biddiw bu ngeen ci topp rek gindiku biddiw bu ngeen ci topp rek gindiku saxaaba bu ngeen ci topp rek gindiku sëriñ Tuba tamit xam le ne seexam sii nga xam ne moo leen tarbiyal boppam ci rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bid dars faqat ba seexal leen décentraliser leen gorlo leen ay dëkk lo leen ñoñe tamit kenn kuñ ci top rek jup ndax kenn ku nek Serigne Touba ci njup la la yar ci la la tarbiya agale la ci yalla ba nga agale mbolo mu dul jeex ci sa dundu ak bi fi njabot continuer ñooñee lañ tànnoon jëmm ju tedd ju sell joo xam ne Sëriñ Tubaa daana wax ne wuyu na aw santam wuyu na aw turam bokk jëfam daa mel ni turam ndax nam tudd jëf ju mel noonu rek lay jëf muy Xasan Xasan Sëriñ Daaru Xasan Njaay alxasan ci arab mooy lu rafet Sëriñ Tubaa nee na daawut jëf lu dul lu rafet moo tax dawut jëf lu dut lu mel ni aw turam jëmm jooju lañ tànn tey war a waxtaane lenn ci ak dundam lu néew a néew ci ak dundam mënuñu waxtaane lépp waaye daan ci tànn ay point yoo xam ne mboolem taalibe yi daañ ci mën a jariñu daañ mën a jànge ci moom ak taalibe daañ mën a jànge ci moom lislaam daañ mën a jànge ci moom ab yar yarub diine daañ mën a jàng ci moom lu ñu def ba tarbiye njaboot gi kookee mooy sëriñ daaru xasan njaay kan mooy cheikh asan njaay cheikh ñu gën koo xam ci sëriñ daaru xasan njaay mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax njare sayer njare sayer la gane jamono 1858 way juro mu gor mi ngi tuddu Serigne mohammedou Ndiaye ñu diko wax Serigne Mamour Fati sar Ndiaye way juro mu jigen mi ngi tuddu Soxna Aminatu Kan Soxna Aminata Kan am ñangam mom Serigne daro Hassane jay mi ngi jànge alquran ci dëkk bobu mu gané jamono sayer wala alquran ku ñi wax njaay Aram sambu, moko janggal ba mu sori mu joge fa dem dëkk bu ñi wax ngay sa yoro dëkk bu ñuy wax ngay saayoro fa la dem la gën a bari fala ko jànge fala la mokkale alquran kon fala la àggalee téere bi yàlla bi dëkk bi mu gënee jamono la tàmbalee ba sori waaye dëkk bii ñu wax léegi fa la mokkale téere bi yàlla bi muy ngay saayoro bind fa ay kaamil yu bari lool kon ci ñaari dëkk yooyu fa la jànge alquran tàmbulee fa njàngum xam-xam muy mubaadi euh, euh, euh, téere yi nga xam ne ci lay tàmbulee njàngum diine fa ko tàmbulee gannaaw bi mu dem daara yi Serigne Mamour Anta Sali ndax bokkoon na ci daara yi nga xam ne moo gënoon siiw ci Sénégal ci majalisul ilm ci daara joo xam ne dañ fay jàng téere xam-xam yi ñu xam ci diine kon ginnaaw bi mu wattoo téere bi yàlla bi muy alquranul karim wattu gu rafet bind ci kaamil yu bari ci dafa jógee dem jàng ci xam-xamu diine muy islaam kon dafa demoon ngir yokk fa xam-xamam jàng na fa xeeti xam-xam yu takko takku xeeti xam-xam yu takko takku jang na ko fa lu ci melni al balagha jang na fa ilmul balaaxa ca seli ak arut ak bayan, kon ñetti xam-xam yoy nga xamne ne arut bayan badia ño composé ilmul balagha fofu la ko jànge ca daare seli jo ci majalisu majalisu mamoran seli bobu ci mbacke jor ak ulumu quraan yi alquran ci boppam daa am xam-xam yu ko composé yu bari lool xam-xam yooyee ma ngi ko jànge ca daaree mam ram jooju bokk na ca xam-xam yooyu lu ci mel ne qiraatu sab'a juróom-ñaari njàngi ni jàng alquran te ba ca gën a siiw ci ñun muy qiraa naafi muy imam naafi qiraa naafi bu ñu ko waxee ñu ci jublu qaaluun ak warsh imam qaaluun ak imam warsh seen ñaari xiraa yooyu lañ ci jublu moo ci gën a siiw ci sunu gox yi ndax mag yi ci lañ seen daara yi ci loolu lañ ko sampe woon xiraa naa amul warsh ak xaalun muy ndono di turaasa di tërika boo xam ne moom la nu mag donta yeneen ya ca des juróom benn xiraa ya ca des tamit kadalika dañ koy jàppe xiraa yoo xam ne mu tawa tawaatur la mu tawaatira la lu jóge ci yonent bi alayhi salatu wasalaam de loo xam ne yëpp ko wér waaye biñ ci jàppoon mooy boobu sëriñ sax jàng na juróom qiraa yëpp kon ku géeju woon la ci ilmul quraan kon mujj na géeju lool ci xam-xam loola bu jàllee muy xam-xamam mat sëkk bañ limaale ko ci ulamaa yi kon sëriñ Daaru Asan ci ulamaa yi la bokkoon aalimul allaama la woon boroom xam-xam bu set la woon bari xam-xam lool njëkk sëriñ Tubaa di woote waaye ba sëriñ Tubaa wootee daa ba xam-xam ba daa jël xam-xam ba ak lépp soppi ko ak taalibe muy jox boppam sëriñ Tubaa Seexul Xadiim kon digganteem ak sëriñ Tubaa bi mu jaayantee def mu bàyyi ak Serigne Touba kon bi nga xamee ne Serigne Mamour Anta wàcc na ab liggéey ci atum sa Chine ci atum sa Chine muy 1300 mu nekk fa moom Serigne Darou Assane ba asa Chine muy hijriya bi nga xamee ne Mamour Anta nelaw na. Serigne Touba ko ne dara ji toog at ak genn wal genn wal go xamne yeungalu dara ci la mom ci nekkon rek la ñu jangale rek ak genn wal gi jotee ci la am digelul rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid dars faqat yaral sey nit ci himma muy jang ak tarbiya jang diine ba fess del ak tarbiyu yaral sey nit ci lolu waye bu len yarati ñam kesse ndax njangum kese taxut nit ag ci way ba dana nek nit ku sel waye taxul mu am sañ-sañ bokk ci khasul khawasul khawas muy nit ñi nga xamne ne ay xejji xejji lañ taxut nit bokk ca loolu la xamoon mo tax mu sos li ñi wax himma muy jang ba fess del ak dox jëm ci yalla muy jema doon am murit ngir jema sos irada muy li nga xamne patch la ci tasawuf te mu ci ñak bi nga xamee ne jamono jooja nit dana dikk mokkal alquran wattu ko wattu gu rafet bind ko ala wahril xayb bind ko te di ko gestu suñ ko masaan indil kamil yooyu mu topp ko bam pare ndax nee ñu booba day jël kamil bi teg ko ci nopp bi rek foo ab yàq nekk rek yàq ba dana tudd boppam ne maa ngi bërëb sàngam ak sàngam wala ak maas ak loo mën a koy tuddal moo koy wax ne ko maa ngi bërëb sàngam su ko defee kaamil topp ko ci noonu gisu ca benn araf dara damm ca dana a de màgg na lool alxuraan yàlla ji nit wattu ko wattu gu rafet bind ko ala wahril xëy bi xoolu ko lu màgg a màgg la waaye am na lu ko gën a màgg ñu ne ko lan mu ne mooy fexe ba lawxul maxfuus bu ñuy bind nga dégg këli xalima gën a may kiic kiice moo gën a jaadu moo gën a doon farata ca doomi soxna loo booba mu ngi leen di junj yoonu tarbiya waaye bi mu agsee ci at ak genn wàll gi ca la ca ca lañ ne ko fas daa bi ma tuumar la ñu waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wooteel sirriya bi nëbbu gi doy na fér béralal euh, yëgleel lii nga xam ne moom lañ la moom lañ la ilham moom lañ la yenkewal ndax moo ne lubbi yunawiru bi nuuril wax xel mii sunu boroom daf koy leeral ci leer wax yi leer gi wax yu di leeral ab yonent di ko wax fi ngay jaar di ko wax li ngay def leer googu ci la sunu borom di leerale samam xel moo tax Serigne Touba lu mu wax rekk wax yu la ci borom bi subhaanahu wa taala lay jóge jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon Serigne Darou Assane ma nga woon ca majlisu Maam Mor Anta Sali ba ba Maam Mor Anta Sali wàcc liggéey te continuer ànd ak Serigne Touba ca daaree xam-xam ja ca majlis ba ba Serigne Touba woote rabbi asxaaba bil himma bokk na ca ña ko njëkk a jox boppam bokk na ca fawju ba ko njëkk a jox boppam moom Serigne Darou Assane ba njëkk a nangul Serigne Touba kon bokk na ca ñam fa nekk ndooloon la rabbi asxaabak bi dem ba di jëpp ku mel ne Serigne aadama Guèye nga xam ne dañ naan moo njëkk jox boppam Serigne Touba Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Massamba Diop Sam Serigne Dame Abdourahmane Lo bi nga xamee ne Serigne Touba wax na waxam ju siiw joojee muy nii رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله رب أصحابك بالهمة ولا تربهم بالدرس فقط مدال جاينت اك سيرن توبا موم دار حسن جيبول تي موم بيمي جيبول ييت لي لا واخ سيرن توبا ابيادي nga gis ne kon way nim len yombe won fess bu nu fesson xam nu xam lu arabiya deg ko lol dem ci mbiar moo tax mu sadd Serigne Touba abiyadi abiyadi moy lillahi qad zurtuhu la ghayruhu arabi id laysa zinatu indim bi xawa bi xawaajaati wa himmati shukru rabbi la sharika lahu nan ko jalla lahul araduuna kassamaawaati li annahu jalla yucti nil muna karama نانكو ويستر العيب في كل ساعاتي أتيتك اليوم ضيفا أطلبن رضا رب البرايا الذي يعلي المقامات نكو قرايا يا ثقتي رضوانه أبدا بغير سقط وتوبيق وآفات بيتي لسرين دار أحسن جاي صد سرين جوابي ميجي نكو لله ñeel na yàlla de xat zurtuhu yàlla képp laa ziyaare ziyaare naa ko laa xayruhu arabi awma jenn aajo jurul sunu borom subhaanahu wa taala id laysa siinatu hindin bi xawaajatin dee taarub hind ak i aajoom soxlawuma dara ci àdduna taarub dara lu dul borom bi subhaanahu wa moom képp laa dëgmal sama im sama himma mooy dëgmal sunu borom subhaanahu wa xam ne yàllaa ngi ci yow Serigne Touba moo tax ma jël sama bopp jébbal la ko ngir ma ngir nga jébbal ma sama borom subhaanahu wa taala teg ma ci yoonu siraatal mustaqim wa himmati shukru rabbin la sharika lahu jalla lahu l aradu wa samawati sama himma man Serigne Darou Assane Ndiaye mooy sant sama boroom du ma ko bokkaaleeg dara moom sama borom subhaanahu wa mooy yàlla mi nga xam ne moo moom juróom-ñaari asamaan moom moom suuf لأنه جل يعطيني المنى كرما ويستر العيب في كل شاعاتي سونو بروم موم جل جل جلاله عز كماله موم يجوخ اي قيول موم يجوخ تدغا موم سترال سترال سماي ايب تي ويب وقتو سونو بروم مو سترال سماي ايب من سيرين دار حسن تي سونو بروم موم كيب ما نيور موم لا دير اتيتك اليوم ضيفا Daifan اطلبن رضا رب البرايا الذي يعطي المقامات mu ne ko ñëw naa ci yow tey doon gan goo xam dara du sama càkkutéef lu dul ngërëm ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo kaweel maqaama yi moo jël maqaama bu ne mu borom boobu rek xiraaya yaa thiqati ridwaanahu abadan bi xëyri suqtin wa tawbiqin wa aafati mu ne samak bernde yow sama ndëgër laay samak bernde mooy ngërëmul yàlla ci lu dul sunu borom subhaanahu wa taala ngërëm lu andut ak mer lu andut ak yeddaange tawbiq lu andut ak kàkk ngërëm loolu képp ma tax a jóg waaye ñoom xamoon nañ ki ñu jox seen bopp muy Serigne Touba Cheikhoul Khadim keroog ba muy jaayanteeg Serigne Touba buy ab yaay di la nangul ko ak njëbbalam kon loolu lenn la ci xasiida gi nga xam ne moom la wayoon Serigne Touba moom la wayoon tudde ko ada ali xamarun weer wi fenk na ci man fenkal nañ weer wi ci man weeroo mooy kan mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim moom Serigne Darou Assane noonu yi la àndeek Serigne tubaa di ko liggéeyal guddeeg cëg mu doonoon koo xam ne boo ko nattee ci àndaari sharia moom Serigne Darou Assane mu mat sëkk kenn du gis looy xebet wala looy xeeb wala looy sikk ci jëmmam ci sharia boo ko nattee ci àndaari sharia da koy mat sëkk nga dikk ci àndaari xaqiqa fees sëkk mu fees dell palaasam kon diggante charia ak xaqiqa kenn mënu ko ci woon a jam bi nga xamee ne Serigne Touba gërëm na ko ba wàcce ko mu tarbiyewu Serigne Touba ba Serigne Touba gërëm ko wàcce ko seexal ko mu daal di dem kër way juram wala këram lay firnde ca dem nga mooy Serigne Touba moo ko bind bataaxal bii moo ko bind way yi sadd koy abiyaat moom it moom Serigne Touba Cheikhoul Khadim lay wane cant ga di wane Serigne Darou Assane ku Serigne Touba santoon la jazaaka baatub jazaaka li tekki mooy sant naa la Serigne Touba nee ko jazaaka rabbuka fi daarayni yaa xasanu xayram bi jaahi alladi min najlihi nee na ko yow Serigne Darou Assane yàlla na ko borom fay yiw yu àdduna ak àllaaxira yow Darou Assane Dia yàlla na la sunu borom fay yiwu àdduna ak àllaaxira yiw woo xam ne dala koy fay ci barke ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne sëtam mooy xasan nga gis foofu jinaasa yaa xasanu al xasan kon lolu day tektale cyant gi ko Serigne Touba sant Serigne Touba sant yonent bi alayhi salaatu salaam sant la yonent bi alayhi salaatu salaam sant sunu borom subhanahu wa taala sant la gërëm la jox la lo xamne ne ëllëg mboolem ku la topp da nga añ añaaleel ko ëllëg ca penjum sunu borom subhanahu wa taala Serigne Touba ne ko xatta taxuusa alladi tarju wa ta'muluhu mimman lahu qad badal kitmaanu wal alanu Sëriñ Tuubaa ko sant naa la yow Daaru Asan Njaay yàlla na la yàlla fay yiw àdduna ak àllaaxira ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba keroog ngay làq li nga doon yaakaar ak di ko mébét ci borom bi subhaanahu wa yàlla mi nga xam ne moo feeñal lu nëbbu lépp lu nëbbu ak lu bér lu nekk feeñ na ci moom dara nëbbuwut ci moom نكف علم بأني راض عنك مطلب أنجاك الفوز من مولاك والمكن فلا تزل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقيك العصيان والفتن نكو يو سنج دار اسام نغا خامني غرمنا لا فاعلم باني راض عنك نغا خامني يو سنج دار اسام من سنج توبا غرمنا لا mangi sakku tamit sunu borom jox la ak texe ak fawz ak texe sunu borom subhanahu wa taala jox lako ak gep xewal goo doon ci aduna ak alakhirah te serigne touba lum ñaan sunu borom def nako ko laata ma koy ñaan ne ko yow serigne daru Asan bul dañ di ragal yalla fo toll na nga nek ci njub gor goru ci ragal yalla ci ragal yalla ak njub fala tazal fit wa mujtahida na nga lu farlu ci ragal yalla ak njub yow serigne daru hasan ngeen nga baña dajé ak moy ak fitna ndax ku regalul yalla jubo ku lu ci ragal gor lu ci jub la ngay dajé lu dara lu ak moy yalla ak fitna yow nak na nga sax bu dañ ci lu foo tollu ci ragal yalla ak njub ngir nga baña dajé ku ak fitna kon képp ku bootu ci moom wala nga sopp ko war nga ngànnaayoo ndénkaan ak cant yooyu ko Serigne Touba santoon ndénkaan yi mu ko dénkoon mooy ak ragal yàlla ak njub ndax Serigne Touba ci loolu képp la tarbiya ci la leen doon yar te ñoom it ci loolu la ñu doon mooy ragal yàlla ak njub ijtihaad di ci jéem tarbiya seen njaboot di ci tarbiya seen i ñu ci jóge yàlla leen borom fay ngën gi aljanna xéewal ya gën ëllëg yal na suñ borom fay te euh, boole ñoom ëllëg ca aljana ya gën a kawe ba mu demee kër baayam moom sëriñ Daaru Asan kër wuy juróom sëriñ bi digal ko mu sañ dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Daaru Salaam la ko sëriñ Tuubaa njëkk a digal mu sañc ko kërug jàmm ñu gën koo xam ci daaru njaay daaru salaam googo daaru njaay la gën a siiwee naka noonu sanc na dëkk bu ñuy wax daarul xaddiim kër sunu borom ñu gën koo xam ci daaru biram boodil kon ci dëkk boobu lañ ko gën a xam naka noonu sanc na fu ñuy wax tuubaa njaay wax nañu ne sëriñ bi moo ko wax tudde ko Touba ndax ci la bokk dëkk boobu ci Touba la bokk moo tax tudde ko Touba mu ko Touba Njaay dëkk yooyu yëpp nag li taxoon mu sañc leen du dara lu dul jëfe li nga xam ne sëriñ Touba def na ko ci moom ak di fa yar ay taalubeem te loolu mooy jikko yi nga xam ne sëriñ bi def na ko ci ñoom lii firndeel loolu daa am ku ñuy wax sëriñ Omar Diop am na lettre boo xam ne sëriñ bi moo ko bindoon sëriñ Omar Diop bam ko ca sante lam ko doon sant ba noppi daf ko wax ne ko ballir salaami ila jaarika alladi fi'luhu kasbi Sëriñ Tuubaa li tax mu sañciloo ko dëkk yooyu du dara comme ni ma ko waxee woon lu dul lam def ci moom mu dajale def ay taalibeem def def ca ñoom loola loola du dara lu dul islaam ju rafet te set te islaam ju rafet te set moo di taalibe ak taalibe mënuñu ko firee lu dul islaam ju set te rafet ndax jamono ji nga xam ne sëriñ Mouhamadul Moustapha mi ngi dund sëñ ma saxir dafa tijji daal di wax benn bëkk néegam ne ko demal ci sëñ moodu boo fa demee nga toog fa lu mu wax nga indil ma ko lu mu wax rek indil ma loola nee ñu taalibe ba dikk fekk sëñ Modou Moustapha ci xuru Mbàkke fekk boobu sëriñ moodoo nga xuru Mbàkke bi muy agsi dajanteeg tàkkusaan di jot sëñ Ablaye Lo daal di noddu takkusaan ba daaneel bi mu noddee ba daaneel sëñ ma ñaw si la laaj ko ne ko damay laaj sëñ Ablaye damay laaj ak taalibe gu lislaam ju rafet te set lislaam ju rafet te set diine lal ko li ko xamee mooy topp imaan islaam islaam ihsaan muy charia joo xam ne dara kooju ko islaam ju rafet te set akuk taalibe bi ñoom ñaar lan lan moo ci gën loolu la laaj daf ne Sëñ Ablaye islaam ju rafet te set akuk taalibe bi Sëñ dem ba di ko tontu dégg bunt yi ne kacc kacc sëñ Modou fu mas nekk mooy jiite julli mooy ji jiite julli juróom mooy doon imaam ba sëñ Modou di ñëw mu ne ko sëñ moodoo ngi ñëw nañ xaaral ba ba mu ñëw nga wax nga laaj ko ci kanamam mu tontu nu sëriñ Mouhamadul Moustapha daal di dugg si jàkk ji bi ñu jullee ba pare sëñ Abdoulaye Lo daal ne sëñ sëñ Mañaaw dellul ca laaj ba nga laajoon sëñ Mañaaw ne ko damay laaj lislaam ju rafet te set ak ku taalibe lu ci gën sëriñ Mouhamadou Moustapha ne leen maa ngi leen di yëgal ne amul kenn ci yéen koo xam ne dana am lislaam ju rafet te set lu may am nag taalibe waaye maa ngi leen di yëgal ne amul ci kenn koo xam ne dana amuk taalibe lu may am na lislaam ji rafet te set képp ku bëgg a séparer ak taalibe ak lislaam ji set te rafet na nga xam ne xamoo islaam ju rafet te set te xamoo ak taalibe ñoom ñaar benn lañ duñ ñaar wuuteeg niñ ko déggee ci suñu jamono mooy kuy rëpp rëpp di soli sakam bu ñu wootee mu daw di raam di jóge fële di maanaam di di def li ñuy wax ak jonge jongelu nga xam ne day mel ne li jigéen di def ci sëy daal ñun moom lañ jàppee ak taalibe bari na yu sosu ci yoonu yoo xam ne bokk ci woon ci woon lislaam ju rafet te set moo di ak taalibe ak taalibe mooy lislaam ju rafet te set lislaam ju rafet te set bu ñu ko waxee du dara mooy jullit bi kenn du ko jiitu jàkka waxtu julloo juróom yépp ca jàkka la koy jullee yéene nit ñi jàmm doon jullit bu set di pratiquer diineem ca na ko lislaam digalee jàng diineem ba xam ko loola bëgg Sëriñ Tubaa dëgg-dëggi bëgg loola mooy ak taalibe ci ni ko sëriñ Mouhamadul Moustapha daan jàngale ndax sëriñ Tuubaa ci loolu la yar mag ñi ndax bu ñu gisee taarixu sëriñ Daaru Asan ak ni mu àndewoon ak sëriñ Tuubaa ni fomp fonkoon lislaam yëf yëpp loolu lay tegtale kon sëriñ Tuubaa waxoon na taalibe bii sëriñ Omar Diop ne ko boo demee ca sa dëkkandoo boobee jotalal ma ko sama nuyoo sa dëkkandoo boobu de jëfam jëfam da dafa mel ne turam jëfam yëpp dafa mel ne turam balleex salaami ilaa jaarika alladi fialuhu kasmi loolu Serigne Touba wax Serigne Omar Diop ne ko jotalal sama nuyoo ci sa dëkkandoo boobu nga xam ne jëfam daa mel ne turam jëf ji muy jëf moo ko turama niroo ñoo yem Serigne Serigne Darou Hassan lu mu tudd Hassan Hassan lu muy firi ci arab mooy lu rafet jëfi Serigne Darou Hassan dafa rafet ba mel ne tur wi loolu la ko Serigne Touba wax. bokk na ci melokaan li nu mën a jàng ci dunduk sëriñ Darou Xasan daana wax ay taalibeem dee leen dee saxal julli juróom ak lu ngeen man ci ay naafi nawafil lu ngeen man ci ay nawafil dee leen ko saxal dee leen saxal julli juróom ak lu ngeen man ci ay nawafil ndax mankat kat diirub li ma ànd ak Serigne Touba. mësumaa digal dara loo xam ne njariñam la Sëriñ tubaa mësumaa digal dara loo xam ne njariñam la lim ma digal lépp sama njariñ la te jaamu yàlla sax ci ak njub jaamu yàlla sax ci ak njub kon nga gis ne bu ñu gisee mag ñi lañu doon dund nañu doon dund seen bamba maanaam nañu doon dunde seenu murit nañu doon téye seenu taalibe bi nañu àndoon ak Sëriñ Tuubaa ak li xew ci jamono ji dangay xam ne wuute nañ lool shattaana ma bayna yazidayn wuute nañ lool déggoo li mu wax nee na Serigne Touba kat lam ma doon digal mooy lu may jariñ waaye dawuma digal mukk loo xam ne amal na ko njariñ te lëm ma daan digal lu dara lu dul jaamu yàlla te sax ci njub ñu toll ci jamono joo xam ne li ëpp ci ñi ñuy woowee ay sëriñ nit dikk ne aslamtu nafsi jébbulu ci yow war nañoo jàng li waxi sëriñ Daaru Asan ji ak jëf ji mu daan jëflanteeg sëriñ Tuubaa sëriñ bi na boo bañ a woo ab taalibe ci bakkanam na ko bañ a ci boppam ngir daraja ak intérêt boppam ak intérêt àdduna taalibe bi moo war di jariñu bis bu nekk ci sëriñ bi wala la ëpp ci njariñ li jariñ li mooy la fexe ba mu yàlla sëriñ jaamu yàlla sëriñ bu nekk war ngaa xëntewoo say taalibe bi sax ci loolu ndax mooy àq ci nga xam ne sëriñ bi may leen ko teel ndax sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci jamono dañu ne gone mas naa toog cib xadaram cib xadaram ba mu yàgg mu sëriñ bi ne teg di ko xool gone gi waxut alhamdulillah mu tisliwaat sëriñ bi ne ne tekk di ko xool gone gi waxut alhamdulillah ba muy ñett yoon mu toog ba mu yàgg mu ne ko yow kuy sa kuy sa kilifa ci ci ci ci sëriñ si mu ne ko diw mu ne ko ba ko seeti keneen ba seeti keneen sëriñ bu la mënta jàngal boo see li ngay wax ba ko sëriñ kooku kon gisinam ci sëriñ diggante sëriñ ak taalibeem mooy dafa jàpp ne diine sëriñ bee ko war a jàngal taalibe bi ba man ko ba mu xam ko diine islaam su sëriñ ba mënu koo bi amut jot gum toog di jàngale ngir ay lawraatam ak i xalawaatam occupé na ko ba mënu ko war naa wut koo xam ne mën naa taxawe loola mu teg ko ci wetam ñu mu di ko jàngaleel diine ak lislaam mu warlook moom la nga xam ne moom la war a warloog moom ndax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké euh, daana ko wax sëriñ Saali ambassadeur ne ko ndax xam nga lu tax yàlla tànn nu teg ñu ci askan wu tedd wi ñu ñuy màggal nit ñi di jébbalu ci noonu dinu teg bërëb yu kawe kawe kawe suñuy njaboot suñuy sët fuñ fuñ ne tëll nit ñi teg leen fu kawe kawe kawe mu ne ko déedéet de mu ne ko dara waralu ko lu dul ñu sàmmal ko diineem ji ak lislaamam ji kon sëriñ bu nekk am nga responsabilité ci yar sa njaboot ci diine sa say taalibe ci diine jàng leen lislaam yow la war wuuteeg li xew ci sunu jamono jamono joo xam ne woote yu bari lool kenn ku nekk di xëcc jëmale ci sa borom sëriñ bee jariñu rek waaye taalibe bi du jariñu jamono joo xam ne li ëpp ci taalibe yi sëriñ bañ nekkalee jariñu ci ñoom mooy bénéfice ci ñoom waaye taalibe yi du ñu jariñu ci sëriñ ba dañ leen di jël def leen li ñuy wax exploité la ñuy tudd exploité liggéey loo leen ba seenu dund jeex takk ñu yeewi leen wàcc leen dem xamuñu seen diine amuñu alali àdduna te sëriñ ba ñu doon topp sax moom ci boppam sarti sëriñ dafa dajewut ca moom ndax sëriñ Tuubaa jàngaloon na nu sarti sëriñ ak nu ñuy toppe sëriñ ak la war taalibe bi waaye taalibe bi balaa tënku ci sarti taalibe bi day fekk sëriñ ba tënku ci sarti sëriñ kon loola bokk na ci donte taalibe bi sax moom la ko war mooy jëfe la sëriñ Tuubaa waxoon mu imtisaalul awaamir Gumusiringi Aktar kontribuat bayi dingat Siringi lahiran obat yo ya yo yo enggak xamne nih eh, sifat sadiqul murid bi atsar comme nako serigne touba jangle nadam nadamtu wa khawfa ikhtirar serigne touba nenon meloy murid sadiq wayna ko muy ñenti ponk ngir bañ waru sidduqu fi mahabbati shaykh bëgg gi nga bëgg sa serigne moy buum gi lay jokale ak sa serigne beugel ga ba ca dess moy imtisaalu awamir fu ndigal la ne tok rek nga gaw jafé ko waye bul fàtte nee woon na la bul jafé len ndigal lo xamne merum borom bi subhanahu wa taala da ca nek ndigal lu la sab sëriñ ndigal nga diko jafé tamit bu ca merum borom bi nek ndax la taata lil makhluq laa taata maxluuqan li su laa taata lil maxluuq fi suxtil khaliq bul top mbindef ci merum aji bind ji lolou serigne touba jangale won ken du top serigne ci bakkanam dedet dañ koy top ci li yalla digle muy alquran ak sunna ci top top serigne waye ken du ko top ci bakkan serigne touba jangale won nako ko kon mu mel kon mak ñi fañ nekkon war nañ delu wat serigne ci war nañu xamal taalibe sen seen diine tarbiyee ndax ak serigne dafa metti nekkut ne toog noonu rek waaye tarbiya ak fexe ba taalibi bi la yàlla booleel nga fexe ba teg ko ci yoon ba ëllëg nga wàccook moom loola dafa doon loo xam ne lu jafe lool la jamono ji nag mboolem woote kat yi bari na lool ñi joxe ay tur bari lool ñi woote maarifa di woote ne dañoo xam yàlla bari lool fees dell suñu jamono noonu tax mucc ci jafe lool ràññee ba xàmmee sëriñ ak këriñ jafe lool ci suñu jamono sëriñ ak këriñ xàmmee ko dafa jafe lool ci suñu jamono ñuy joxe ay wird di woote maarifa bari lool ba ëpp seex walla sëriñ si nga xam ne maanaa cosaan la woon dañoo tege woon ci sunna tege ci alquran yi gindi nit ñi léegi ñuy woote xeeti tur yi yu mel noonu nit ñi daal loolu moo delloon moo ëpp ci jamono ji léegi ndax bul fàttali Sufyaanu Tawri yi nee na jamono ngi dikk joo xam ne ñeent ngi nii ku koy wër da nga ko wër ba dagg cëpp doo ko gis ba ci ëpp solo mooy sëriñ nee na woon jamono ngi dikk ca kanam joo xam ne kuy wër sëriñ bu mat sëriñ da wër ba jeexal ba dajal kapp doo gis sëriñ boo xam ne mat na sëriñ qualité sëriñ daje ne ca moom moo tax waxoon naa ko ci sëriñum ndono rek daa nekk mu ëpp ci sëriñ si léegi ak sëriñub kër loola nag sëriñ bu nekk war sa bopp jema a jëf jefi jëfi bopp ndax buñ lay top ngir sa bay wolof day wax ne diw buñ ne ko sa baye a lamuy la tekki moy yow tekki wa dara li tax ñu tëb la fi dem ci sa baye di ko bala fi yow ci sa jëmm wane ne yow tekki wa dara kenn ku nekk warna bañ ñu la fay di tuddu sa baye nañ la tuddu ba pare yow kat ni nga mëna mel ni nga baxé ni nga mëna mel ndax sa way jur ni la mel loolu kat mooy tagg wi gën waaye wàcc la fa dem ci say jur direct mooy li ngay li muy tekki mooy yow tekki woo dara kon li nga fi fekk fexeel ba sàmm ko ba dolli ko ba garde ko ba dara du ko kooj dara du ko yàq bépp bi bu bëgg ànd ak yow ci bakkan teel a tàqale ko moom ndax Serigne Mouhamadul Moustapha waxoon na ko ci mujjug jamonoom dajale woon na mboolem seex si ne leen bi yi ngeen àndal na ngeen leen wax dëgg te jaamuloo ni fexe ba ñu jaamu yàlla tey liggéey suñ ko mën te def na ngeen teel la tàqalikook ñoom fii ci àdduna bala ñoo dem ëllëg yowmal xiyaam lu ko mooy ëllëg da ngeen ne siiw a ñoom te du ngeen te du ngeen mën a tàqalikook ñoom kon loola di lu mata bàyyi xel ñu dellu ci mag ñi roy ci ñoom mag ñi ni ñu ànde woon ak sëriñ Touba mooy topp ko ci euh, ndigal ak tere te dawu leen digal lu dut lu yàlla digle dawu leen tere lu dut lu yàlla teg tere topp ga taalibe yi ci amoon ñoo ci amoon euh, njariñ waaye sëriñ bi daw ci jariñu waaye kon yow sëriñ bi bul fexe ba euh, taalibe bii nga yor sa dund di ko tarbiye ba keroog nga tàqalikook moom yow rek yaay bénéfice ci moom waaye moom du bénéfice ci yow taalibe ak am ay xaq da nga am ay devoir ak i droit sëriñ bi am na xaq yu ma ameel taalibe bi taalibe bi am na ay xaq yu ma ameel sëriñ bi bokk na ca taalibe bi xaq yi ma ameel sëriñ bi mooy ñeent yooyu sëñ Tuubaa tuddoon nga xam ne mooy tax taalibe doon taalibe dëgg murit doon murit saadiq mooy imtisaalu awaamir topp ndigal bu ko digalee mu topp ko ak bokk na ca tarkul i'tiraad bàyyi diingat sëriñ sëb sëriñ bu ko diingat zaahiran wa baatinan bokk na ca mahabbatu cheikh bëgg sëriñ bi nga àndal dëgg dëggi bëgg loola kon mooy yi nga xam ne mooy buum gi takk taalibe bi ci sëriñ bi kon taalibe bi na ko bàyyi xel bu baax bokk na ca àq yi euh, sëriñ ameel taalibe mooy sukkuraatus ndee mu taxawu ko ba seytaane du ko yàqal bokk na ci xàq mu ko ameel mooy mu taxawu ko ci uh, ba uh, uh, mbugalum mbàmmeel mu taxawu ko ca musalu ko ca bokk na ci àq yi mu ko ameel ëllëg ca péncum yàlla ma mu bokk ca ña nga xam ne su naree dugg ca kërug safaan ga mu taxaw ci borom bi subhaanahu taala tinu ko ba borom bi rus ko tabbal ko ca aljanna yi nga xam ne ñoo gën a kawe loolu mooy àq yi nga xam ne moom la taalibe moom la sëriñ ameel taalibe bi kon lii nga xam ne sëriñ Darou Assane wax na ko ci sëriñ Touba sëriñ Basiiru indi na ko ci minanu baaxil xadim sëriñ bi mas na ko wax it ne ko danga dem bali njanaaw yi njanaaw yi sab danga ko xam maanaam li njanaaw yi picc yi li ñuy sab làkk bi ñuy làkk bu ñuy sab li ñuy wax sëriñ Tuubaa waxoon na sëñ Daaru Asan ne ko balaa nga génn àdduna da nga xam li njanaaw yi di sab loolu am na ñu ne ci nettali sëriñ Daaru Asan ci mujjug jamonoom benn bis dañu ne dafa toog di jàpp ci garabam bi mu jàppee ba pare ci buntu këram daal di gis ñaari picc yi tong ci su garab mu tok bam mu mu ne ci serigne touba lum la dik ci aduna lum la wax bala ngaa genn aduna dang ci tek sa beut ñu ne ko lu bu doon mu ne ñaari picc yi de ma ngi deg men morom mi nan ko serigne touba neena na moon balaa nga genn jamono da nga xam li picc di wax ben picc bi ma ngi ko muy wax morom mi nan ko fu ñuy fanani tay mu ne ko ca garabu daru Asan jay gele la fanani xam naa la li muy tegtale mooy ñi àndoon ak Serigne Touba Serigne naxu leen gunge na leen ba teg leen ci siraatul mustaqim ba yóbbu leen ci borom bi subhaanahu wa taala takkal leen garaat yu kawe boole leen nga xam ne ëllëg sañ-sañ ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ngir rambu seenu xeex ñooñu ci la Serigne Darou asan bokk ñu ne ba mo xamé sabu bu picci teggu ci fan yu néew wacc ab liggéey ngir lako Serigne Touba waxon xamone na ne bala genn jamono tek ci beutam mu nekkon ko xam da daan wor da daan wor bëccëg yi di taxaw guddi da daan bëccëg bëccëg yi da ko daan wor bu guddi mu muy nafilé di fanane. Nafile di jaamu boromam Subhanahu wa taala kon serigne daru asan sawam sawaman qawaman lawon wor kat lawon taxaw kat guddi lawon woon ku daan naafile lu bare bare bare lawon fumu tollu mi ngi jang alquran niko serigne basir waxe dafa wax ne qultu wa kana la xasan من بقية الصالحين صواما قواما لا يفتر عن القرآن دائما الاعتزال لولا سرين بسير وخ sëriñ Basiru nee na man de maa wax ne xultu maa wax sëriñ Basiru ne sëriñ Basiru ko garanteel sëriñ Daaru Asan nee na man maa wax ne sëriñ Daaru Asan de bokk na ci nit yàlla yi saalixiin yi nit ñu yiw ñi sëriñ Daaru ci nit yàlla yi la bokkoon ndax woorkat la woon taxawkatu guddi la woon daan naafile daw tàqalikook alquran foo ko fekk mi ngi beru sax ci jàng alquran di settantal téereb yàlla bi ak di ko wàcce lu bari lool kon daal ci gàttal nii la nekke woon ak sëriñ bi gannaaw bi mu ko wàccee itam noonu la doon doxee di ko jëfe mu ngi wàcc ab liggéey 1924 ci Touba Njaay ñu denc ko fii ci tuubaa ci armeel yu njëkk yi fa ñuy wax guy texe ku fa dem da fa fekk barabam yàlla na yàlla dolli leeram te tas ñu ci barkeem amiin kon Sëriñ Daaru Asan bokk na ci kibaaru atbaa Cheikhul Xadim ci mag ñi njëkk topp sëriñ Touba bokk na ci nee ñu Serigne Darou ak àggoon na ci Serigne Touba benn moom jël ko taf ko ci boppam ba xalut sax daal di ko Serigne daana dugg weer nee ñu ci nett bi di xalwatu bu waxtu julli jote sëriñ Touba li xaamal ko mu jiite o sàkki dox seen diggante. Serigne Touba leqaam ko mu jiite bu Serigne Touba duggee xolu weer Serigne Darou Assane leqaamal ko sëriñ Touba jiite juddu kon sëriñ Darou Assane bokk na ci mag ñi fas yoon wi naa ne kon Serigne Darou Assane royukaay la bokk na ci model yi nga xam ne jamono da ko war a indiwaat ngir ndaw ñi jàng taarixam ngir xam ne ku tegoon tànkam la ci sunna ku tegoon tànkam la ci siraatal mustaqim yaroon ci ay taalibeem yaroon ci ak njabootam loolu kooku mooy ki nga xam ne moom lañ leen indiloon tey ci seen sit murid point info seen mbokk oustaz imam sàmba Syll moo leen ko doon defal ki nu nekkaloon ci xarala gi di Serigne euh, di sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram mboolem xalifa yi nga xamne ñu ñoo sëriñ Daaru di ca jital khalifa bi nga xamne mo fi nek euh serigne di ñaanal tawfiq ak yërmande yalla khalifa bi fi joge di Sering Cheikh Fat Silla ndjay sunu borom soti xewalam ak leram ak yermandem ci kawam te tas ci barkem di ñaanal kiko wootu tok ab jataayam mom Serigne Cheikh Fat Serigne Cheikh daru ñoo ñep ñi ngi leen di sant di leen gërem di leen ñaanal tawfiq ak muccu li fi mag ñi nëtëroon te naalon ko yàlla nañ ko tanuk, ci katanuk borom bi subhanahu wa taala te dëppoo ci ngeureumul Serigne Touba ak bëgg-bëggu Serigne mohammedul mustafa bëgg-bëgg sen mam serigne Darou Assane jay kon ñi ngi sante ñep di gërem ñep di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh lu jup ci kaddu yi nañ xamne borom bi subhanahu wa taala la ak serigne Tuubaa mi nu katanal waye lu ci deung ñu ngi koy jéggulu di jéggulu mbolem mboolem ak setadi di wax ne bëgguñu jubluwuñ ci dara lu dut feñal mag ñi doonte nëbbatuwuñ sax waye ñi leen xamul won xam leen lolu kep lañ ci jublu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.